aywa ñu dem ci ñaari yéenekaay yu euh, euh, groupe Futur Média muy euh, l'observateur ak record ñu doore ko ak l'observateur à la une gaz moo fi xeeñ ñoom nag new deal la ñu ko dippee moom daal muy wàllum réorganisation bu aju nag ci financement koppar yeeg gaz baak doxalin bu bees bi nga xam ne tëral nañ ko ci ak benn société bu bees boo xam ne daal mooy Grand Tortue nag lu jëm nag ci propriété du Euh, mbir moomu ak champ gazier bi ñu ne Grand Tortue ne dañ ko jox euh, ngeen baal ma euh, benn société bu bees ak désistement dellu gannaaw bu Sénégal ak Mauritanie ak itam rôle intermédiaire maanaam bi nga xam ne British Petroleum moom nag joué na ko ci loolu yéenekaay bi di l'Observateur moo ko génne ci page cinq l'Observateur ba tey dellu siwaat ci leneen muy école des maris foofee ca Jeddah Caaroy kaw am nañ fa ne makka waxtaan boo xam ne euh, dañu fay jàngal euh, ñenn ci ay boroom kër naka la ñu yoree soxna yi. Euh, la tribunal bu Dakar moom nag ñëw ci beneen mbir muy lu jëm ci yebbeeg jokkalanteeg teralaate moom daal soxna si nga xam ne ngénte doomam bu jigéen moo ko yóbbee musiba ndax dafa tëgg wëndeelu ñaari soxna ci ay ndima yoo xam ne tissu de valeur lañ koy wax ñu xayma ko ci ñaari million moom nag yóbbu nañ ko di ko àtte lu jëm itam ci leneen muy accès aux liquides précieux euh, euh, Dakar au secours de la planète loolu lañ ko euh, dippee xam ngeen ne dañoo dëkkmal forum mondial de l'eau di am fii ci Sénégal football ak double confrontation ak Égypte mu soxal barrage coupe du monde 2022 ñu ne nag Cissé daal les champions d'Afrique la tegaat ci terrain bi ñu fa yéene jàkkaarloo ak pharaon yu Égypte leneen itam lu jëm ci wàllum bad buzz euh, maanaam daal euh, bëgg siiw euh, bëgg feeñ foo toll di def luy tax ñuy wax ci yow ak jafe-jafe yi nga xam ne mën na koo indil ci ñenn ñi loolu la yéenekaay bi di l'observateur xëyee gannaaw l'observateur ñu jàll ci record Malick record ci xëtam bu njëkk euh, mu ngi ñëw rek euh, ci ligue des champions bi tirage quart de finale yi ñu ne nag euh, maanaam dajey ponkal moom mënta ñàkk ndax boo xoolee rek nataal bi ay ponkal nga cey gis mu mel ni que Chelsea bu Edouard Mendy yaa ngi koy gis noonu Liverpool bu Sadio Mané Villarreal bu Boulaye ja mi ngi noonu Real de Madrid ak itamit Bayern de Munich maanaam daal ay ponkal rek ñoo daje. Mm-hmm. ku ci bañ a daje ak ponkal bu yeboo nga bañ a egg ci quart de finale lool waaye nag ci wàllu euh, Lions yi ñi ngi xaar ci kanam Aliou Cissé fësal Sénégal Égypte ñu ni nag Ismaïla Sarr mi ñu doon naatable dina ñëw ak du ñëw dina ca bokk Olympique de Marseille moom tamit euh, def na jaloore euh, ba nga xam ni daal mi ngi retrouver li ñu tuddee le frissons européens mhm. Mbaye Diouf Dia président Mbour Petite cop nee na ñoom seen bëgg-bëgg mooy bokk ci top 5 bi waaye nag coup de cri de cœur bi mooy ci basketball temple stadium Marius Ndiaye fi mu nekk nii état bi mu nekk doy na waar ñuy interpeller autorités yi ñu gestuwaat foofu nga xam ne mooy temple basket bi ndax cosaan li foofu la làmp ya baaxul tartan ba baaxul stade ba bon na kenn xamut nu mu mel te am na budget bu ñu dégagé pour defar ko. ñaareel bu yàññi rek. tax ñu bu yàññi ñu fàtte aaw mi ngi noonu moo tax école des maris boobu <laughs> war nañ ma caa woo ma jox gaa yi ay jërëjëf merci beaucoup Malick Thiandoum aywa ñu dalal léegi Oumy Samb euh, ci météo en express muy dernier point laata ñu yëkkati jataay